saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa le géant di bawol tafaatin ma ñetti kàngami làmb xëy jàngat ci moom pourquoi tafaatin évité loolee la kàngami làmb yi xëy jàngat maam lee sëwru faal abdu baaxum xëy nañ jàngat mbiri tafaatin moom le géant di bawol boroom taq ci ripp xale yi nanguwuñ koo jël mag ñi nanguwuñu koo jël ñàkk jël googee ci moom la wala du ci moom maam lees sëwru faal ak abdu baaxum xëy nañ wax ci bu dee maam lees ma ca bawol mbooloo xam tafaatin danger kese la te gaa yi xam nekk ci moom boo xoolee ci ay entraînement am ak lépp lu nekk ci moom lu ponkal mu koy wone boo ko gisee te xam mbër di nga xam ne physiquement il est en forme te mbër mu ci xool dayoom xool tolluwaayam di nga xam ne daan tafaatin du lu yomb gars yi ñu jine jàpp leen xam nañ bawol bawol bi Balla Gaye mi boo ñaa fëgg buntoom mu ubbil ko waroon ubbil tafaatin bu dee Sëru Fall manager la moo xam le mooy gars yi dañoo bëgg lu yomb kepp VIP yi ma fi gis ak yenn mbër yi ma fi gis lu yomb la taxaw ne bëréewuma ak tafaatin da nga koo tàppe gannaaw yomb faaw ñu wiiri wiiri jaari ndaar yi abdu baaxum ne ca tonn ne ñoo yey kat wiiri wiiri jaari ndaar tafaatin miy wex xàtt la def kuy wër mbër mu wex ba agsi ci tafaatin jàppal am na corpulence bi am na doole ji mën naa xeex te tëlewut bëre qualité yooyee na ku ko dajale ci làmb du yomb mbër jël la kon laaj ba sunu làmb xëy sàmb ci tafaatin gaaye tontu nanu ko bu nu jàllee ci écurie Soumbédioune ma ñu créé yi difficile jàpp nañu danañ génn ca mball ay recrutement jël directeur li ni moo tax ñu jàpp ne coono yi ñu nekkoon yu ne Rock Mbalax dana leen ci génne bu dee Boy Kayre la mu xam mooy dañuy regretter crise bi fi jaar waaye ak ñëw Rock Mbalax jàpp nañu ne loolee dana deñ rafet nañu njort ne écrit bi fii lay jaar décollé bu ñu jàllee ca grève arbitre ya ba léegi Babacar Diop DTR bu Thiès moo xëy wax ca mbir ma moom directeur technique bu Thiès Babacar Diop la mu xam mooy arbitre yi la wax dara du ca formé ay arbitre départementaux ñu doon arbitre régionaux ba mujj doon arbitre nationaux te arbitre yooyee ku jàng nekku ca woon te boo leen ñoo gënoon a taxaw gën a ay arbitre yi fi nekk foofu te ñoom li ñuy wax ci honoraire yi dara amu ca seen honoraire yi mu ngi dépendre ci frais d'organisation honoraire yooyee mu ngi entre ba 150 arbitre yi dañuy laal ba francs combat bi fi sii jaxate tëggoon diggante Bombardier ak Baboy arbitre yi laal nañu ci ne CNG du négocier ak saa yu sponsor amee ci làmb ñoom dañuy laal xaalis bu bari ku weddi laajal Gaston Mbengue moom xam na bu baax li ñuy wax te millions yu bari yi ñuy tudd ci làmb gisu ko loolee nag buñ ca sukkandikoo naan dañoo war a yokkule arbitre di jot ñu ngi nax seen bopp bu ñu jàllee ca Djilor commune bu Fimela département de Fatick ñoom seen galaa ñu ngi ko jàppale 5 ba le 8 mars bii ñu dëgmal ajuma ji lay tàmbali ñu ngi fa teg 1 million 500 mille francs ëllëg incha allah.